Bienvenue sur Salam Vision. man maa ngi tudd Birame Khoudia Lo nekk président alliance pour la patrie et l'émergence dëggu di wax ni du ma rafetlu li nga xam ni maa ngi koy dégg ci audio yi te euh, baatu Aminata Lo Dieng nekk ci li may wax rek mooy que dañu war a respecter suñu institution yi dañu war a dimbali policiers yi actuellement pour ñu mën a liggéey seen liggéey normalement yenn wax yi du waxu kilifa. Euh, ñun opposition la ñu nekk mais il va falloir que ñu xam ni ñoom ils ont déjà gouverné donc am na ñu xam ni moom du waxam waaw maa ngi ñaan nag justice bi ñu libéré ko et tout ça mais il va falloir que propos yu mel noonu quand même mu excuser wu ba pare bañati ko def loolu daal laa xalaat ci mbir moom jërëjëf. Bonjour, je m'appelle Biram Khoudjelo, je suis le président de l'Alliance pour la patrie et l'émergence de Gou. la République, Aminata Lodien, je pense fondamentalement qu'on doit Euh, avoir de la retenue et essayer de respecter les institutions de la République. Il est fondamental de savoir aujourd'hui que lorsque j'ai entendu, n'est-ce pas, sa voix par l'intermédiaire des audios qui circulent, j'ai été complètement déçu par son attitude. Il faut respecter les institutions et aider nos hommes n'est-ce pas, de tenue à pouvoir faire correctement le travail. Nous traversons une période extrêmement difficile. Bon, je regrette, mais ce ne sont pas des propos que doivent tenir une ancienne ministre. Je suis désolé et je demande, n'est-ce pas, qu'on puisse, n'est-ce pas, l'excuser, mais fondamentalement, elle ne doit plus recommencer ces genres de propos. C'est désolant. Merci. Bienvenue sur Salam Vision.